ziar nañ leen ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci seetaan bi nga ñuy seetaan partout dans le monde moo France États-Unis Espagne Maroc fépp la Sénégal nekk di suivre 4appuis ñu la nuyu bu baax di la ziar tey nag ñu ngi parcelle unité unité 4 seet fi Boy Faye euh, ñu xam ko bu baax si làmb xam ko si lutte avec frappe xam ko ci lutte lu nekk nag tey nag ñëwoon fii seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ak ci carrière am carrière am carrière lutte coronavirus beeg huis clos beeg euh, affaire yu mel noonu yëpp ñu fas yéene ci waxtaan ak moom mu joxe ci xalaatam ñu lay koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu si waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi lay nuyu Bamba bu baax a baax di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu Sénégal waaw di nuyu sunu grand bi nga xam ne moom lañ ñëw fii ci barab bi toog fi muy daara ji muy Saalum Sopp di sunu grand El Hadj mënuñ ko fay. mooy jàpp ci bagage yi bu baax a baax ak booyam yi mu nekkal nii yëpp ñoom Modou gaa yëpp mooy loolu. Mhm. Ah, di la nuyu bu baax a baax di nuyu àdduna. léegi booy fay. Mhm. comme amul lu Ama Baldé loo ci xalaat. waaw Modou Lo làmb la comme làmb yi. waaw làmb ju neex la làmb la joo xamante ne nii Sénégal yëpp a koy xaar waaw làmb ju neex la parce que mooy loolu làmb juñ ñu yàgg a togg la te xam naa ne daal ñoom ñaar niñ ko waajee ni ma ko gisee nii. bu ñu dajantee wax dëgg fa yàlla du doon làmb ji soof joo xamante ne dina naqari askan wi dina doon luy neex askan wi am na yaakaar du doon yàgg daal. du doon làmb ji yàgg. waaw am na ci yaakaar bu baax a baax parce que ah Modou du arrièral Ama mais Ama Baldé tamit du xaar Modou dina ñëw ci kawam waaw looloo ngi ci làmb ji aha ah, moo tax mu gëm ne du yàgg daal. mais làmb est-ce que des fois du laaj du ah, na laaj arrière mais daf ci am yi nga xamante ne nii maanaam xam nga kii bu waxee fuggam kii waxee fuggam. kii kii boot boot am lu mu boot kii am lu mu boot bu ñëwee suul tànk yi ku ci nekk maanaam dëgg la ah, bataille psychologique day am ci arrière def ay kii mooy loolu mais ñu ma leen gisee ñoom ñaar pare wuñ pour def bataille psychologique damay gis ni dañuy suul tànk yi dalante ñoom ñaar man li ma gis nii loolu laa am yaakaar ne noonu la làmb ji demee ko te loolu ba amee làmb ji du yàgg. ñoom lu ñu wax loolu la ñuy jëfee waaw man gis naa ne loolu la ñuy jëfee da nga ko daan gis ci mbër mu wax dara du ko jëf mais gëm naa ne ñoom ñaar ni ñu wax noonu la ñuy jëfee de mhm. parce que man ni ma gisee Ama Baldé ak ah, ni ma gisee Modou xeex nag dina am mhm. mais ci bëre lay xeex moom dina am ah bu xeex amee lu tax mënut a jeexee ci xeex du jeexee ci xeex làmb ji si bëre lay jeexee xeex lay démarré daal mhm. ñu xeex ci kaw kenn kaaw morom moom profité paqueté ko mu jeex waaw <laughs> ji loolu laa gis ni loolu lay demee kaaw mën na ci am waaw ah, dina am ku dina am ku kaaw de dañ ci dañ ci kaaw nit de mu tartari wa kenn ki daw mam mam daw song ko làmb ji jeex waaw. mais dafa li nga wax ni yow lu tax kaaw bi. ah man de loolu laa gis moom loolu laa loolu laa yaakaar. <laughs> non foo teg ne suñu xeexee day am kaaw loolu laa bëgg nga expliquer. dañuy dalante ama day ñëw de muuru da ngay xaar ñoom ñaar tey jii nii mënal ñoom dañuy dalante. Hmm. buñ dalantee korosé yi dina am kuñ ci dóor ma ne la mu kaaw laa lay wax ne kenn ki profité song ko làmb jeex. parce que ni ñu waxee ci loolu nga basé wu. waaw am na yaakaar ne ñoom ñaar ñi ma gis ni ñëpp seeni seeni seen i bagage noonu la parce que Molo c'est rare nga gis mu wax def leneen Ama c'est rare nga gis mu wax ñëw def leneen. Mm. saa bu waxee bu ñëwee day dal day yéeg sa ko moom moom day ñëw. Mm. waaw looloo tax. Mm. Uh-huh. kon combat bi du yàgg. non man gisuma ci yàgg de combat bi moom gisuma ci muy làmb bu yàgg moom gisuma ko ci de. Uh-huh. te ñu wax ne Modou à chaque fois muy bëri mbël du bëri mbël bi da jàpp tànkam ak ay di ko jox wet est-ce que combat bi ko mu def loolu. non loolu loolu gis nga nit ak mëninam noonu la noonu rek lay demee doomu aadama dafa am ñoo xam ne ku ci nekk da am lii sa mënin. Mhm. moom loolu mëninam la. Mhm. waaw mais nekkul ka nag mbër yëpp la ñuy may loolu quoi. Mhm. mais nit ak mëninam moom. waaw téy rek def ci ndànk rek ndax mën nga ko ci fekk sous-estimé ko ci li mu mën mu daan la ci waaw. li nga xam ne moom nga entraîné liggéey ko yow ak sa staff muy li la doy pour nga am ndam. yow boo ñëwee jëfee loolu rek nga dem. loolu moo ci nekk quoi. ku dàq xeex ñoom ñaar. ñoom ñaar. ah ñoom ñaar wax dëgg fa yàlla nag moom pour ku dàqee xeex moom man gis naa ne ñoom ñaar ñëpp ay xeexkat lañ mm-hmm. waaw ndax ku ci nekk dóor nga mbër mu kaaw nga daw taxañ ko mm-hmm. waaw. kon su ma déggee xeex bi ñun ñëpp la arrangé ci combat bi. non ñoom ñaar ñëpp la arrangé mais bu bu xam nga ay po ñaari ponkol moom bu jóoloo koros ay tàkk moom foo jaar dina am ku ñu dóor mu bàyyi. waaw kaw dina am te am ku ci jël ko moom bàyyi daw wuti ay tàng wala nga wuti leneen ba dara fekk la ci waaw mais bu koy tàkkee moom dina am kum dul arrangé. comme ñu arrangé. non làmb la rek dina am comme ci dul arrangé ñaari ponkal yu dalante kay korose yi tàkk kay moom dina ci am koo xam ne kuy bu dalee dalaa du ko arrangé waaw. Hmm. day jéem a bàyyi xeex bi daw songi def lu mu gëmu daanu wala mu def lu mu gëm di ko forcer ba am ci ndam yooyu rek moo ci am. Hmm. léegi bëre nag jàppante bëre bi. jàppante bëre bi ñoom ñëpp ay mbërëntaan lañ ñoom ñaar ñëpp a mën a bëre. Hmm. ay mbërëntaan lañ mën na noo bëre. kon bëri ba 50 50 la. waaw man daal 50 50 la que le meilleur gagne loolu wax. mais gis naa ni daal gis naa ni daal làmb ji xeex lay commencé. Mhm. mais bari lay jeexee. Mhm. ci biir xeex bi dina am guñ ci dóor mu mu kaaw a daw songi làmb ji jeex. yow dañ la yow làmb ji dañ ko dañ la koy wax dañ la ko dañ la ko. waxuñ ma dara damaa xool ñaari mbëri rek li ma sama xel jox laa wax rek kenn waxu ma dara sama xel loolu la ma jox ma wax ko rek xam nga da ko laaj ma wax la li sama xel jox rek loolu laa la wax. li sa xel wax loolu li sa xel daj loolu nga wax. combat bi est nga foog ne combat combat combat la si ñoom ñaan ñëpp. non combat bi moom mooy li ma lay wax rek. dafay laaj liggéey bu méttee méttee méttee métti ndax ku ku leen xool ñoom ñaar ni ñuy préparé nga xam ku ci nekk yaa ngi liggéey loo xamante ne am nga yaakaar ne dina la may ndam mhm. waaw parce que xam Modou xam ne day liggéey ku xam mhm. Ama ne day liggéey bu baax a baax ñoom ñëpp dañuy liggéey lu métti métti moo tax ma ne boo xamante ne mhm. combat bu yomb la mais tamit combat bu la bu nar gaaw parce que ñoom ñaar gis naa li liggéey ne amuñu temps ñëw sax di wër wërloo ci biir stade bi di yàggal nit ñi bu arbitre sifflé rek dañuy dalante li war a jeex jeex ful la ñuy def si biir géew waaw man am naa yaakaar ne ful ak fayda la ñuy def rek génn dem seen yoon waaw loolu moo ci nekk waaw parce que boo leen xoolee mm-hmm. ñoom seetaan nga gis leen ñu am làmb boo xamante ne dañ fay nekk di mm-hmm. yooyu noonu waaw yooyu yëpp ñoom gis ñuy def làmb yu mel noonu gis ni nit ñi bu ñu daggee seen i ticket ñëw di àdduna yëpp toog di leen seetaan ba arbitre sifflé dañu war a def farata ku nekk dem mm-hmm. ma léegi ma gis ne ñoom ñaar laaxatu bi nga laaxatu loolu pour pour lan la selon ah, yow waaw loolu la loolu mooy yoon mais yow ku ñëpp xam foo jëm doo gaaw a yegg yow mm. munoo di waaj bës bu mag nit ñi di ci dem. Mm. nga bëgg a jëm guerre wane say arme mm. soo demee kay waaj yi jekku la. ku ci nekk da ngay dëxañu liggéey li nga yaakaar ne moo lay may ndam rek. ku ci nekk daal di waaw toog ci say tànk assurer sa bopp. di waajal sa bopp. ñi nga yaakaar ñi nga xam fu ne nga dem fa toog di xaar loolu moo ci nekk kon bul wanee gum bul wane ci li ngay liggéey loo ci mën a nëbbatu doyul muy ci ñoom ñaar ñëpp mm-hmm. ba bu jour ba maanaam liñ nëbbatu lépp bu ñëwee bu jour ba ñu xam ne lii lii kii di nëbbatu lii taxoon kii di nëbbatu mm-hmm. waa loolu moo ci am njariñ mm-hmm. uh-huh. ok comme bi psychologiquement kan lay kan lay pression bi kan lay ëppee si ñoom ñaar non manoom ñoom ñaar gisuma ñuy bëree pression na parce que ñoom ku ci nekk ñoom ñaar moom xam nga Modou day aisé taxaw nga gis muy tàllal ay coups yu baax di déplacé wu di xeex Ama Baldé day ñàkk moom tamit bu arbitre ne far na day maam dal sa kaw ngeen xeex. moo tax ma ne ñoom ñaar du ñu gisuma ñu doon ñuy bëree ay pression wala yu demee noonu wax dëgg ñoom moom bu arbitre sifflé gis naa ne ñoom dañuy dalante mu jeex man daal làmb ji loolu laa ci gis arbitre sifflé ñu dal ñu ñu jàpp xeex ñoom ñaar xeex jiwaloo ñoom ñaar li war a jeex jeex loolu daal laa gis ci làmb gisuma ci mu yàgg daal gisuma Euh, non man moom gisuma làmb ju yàgg foofu. ñoom ñaar. waaw ah, bu fekkee ku ci nekk li li nga xamante ne moo newoon ci yow moo ne ci yow. bu arbitre sifflé ma ne la du doon luy yàgg. Mhm. ci gaawaay kay làmb ji jeex ku ne ut foo jaar. Mhm. waaw. ñu jaaxal ci benn question rek. Mhm. lan la war a lan la war a xaj moroomam nga xam ne bu fa bu sa moroom eggee mën nga am lu la metti lu la naxari ci combat bi. Ah, ñoom ñaar. waaw ah, leen la rek xam nga am na foo xamante ne ponkal yegg fa wóorul. waaw ponkal yegg la fa wóorul. mooy maanaam tey jii mën na ne maanaam maanaam Modou bu xaaree ba Ama yëg ko fenn fii di yomb waaye mooru tamit Ama tamit mën naa bañ Modou yóbbu làmb ji mu demaale mu diire quoi waaw. ku ci nekk kii attaque da koy arrangé kii bañ mu diire da koy arrangé. Mm-hmm. ñoom ñaar ku ci nekk dafa am point boobu mu ne. Mm-hmm. mais man gis naa carrément ne. Mm-hmm. bii même Modou Modou du patienté. waa ji moom ku ne xam na ne lu xaar. moo tax ma ne làmb ji gis naa ne làmb ji gaaw la quoi. ñoom ñaar gis naa ne juy gaaw la parce que ni ma dégg ñu waxee ñoom ñaar mm. ku ci ne yàkkamti nga sa bopp yàkkamti nga sa morom quoi pour mu ñëw ku nekk wane li ne ci yow waaw parce que làmb ji avant muy taxaw ni cooba coow li daa bari woon gars yi wax nañ fi coow li bëri na lool lool lool lool kon man am naa yaakaar ne ñoom ñaar ak niñ nekkee ay borom sañ-sañ man am naa yaakaar ne ba arbitre sifflé rek coow li jeex waaw bu arbitre sifflé rek mu jeex tàkk dañuy talante mu jeex tàkk waaw loolu de laay gis moom. bu jàpp tànk amee na lu ci mën a jàpp tànk ci ban côté. jàpp tànk rek Modou jàpp tànk Ama wala Ama jàpp jàpp tànk Modou. est-ce que mën na faa yem waaw Amata jàpp tànk moom mënin la rek. dama ne la jàpp tànk moom gisuma ko ci. wala bu jàpp tànk di am ki jàpp tànkam day daanu dama la ba arbitre sifflé bu kenn ki ne bëri yërndu keneen ki korosé yi day tàkk. loolu moom day am moom korosé yi moom day dalante ba mu dal ci koo xamante ne du ko neex mu tartare keneen ki daw na song ko mu jeex <laughs> waaw loolu loolu loolu laa la ci mën a wax. waaw boobu nga teg affaire bi loolu laa la ci mën a wax <laughs> waaw mais mënuñu tëb tëb nii rek songante nii rek mu jeex foo ñu xeex. waaw faaw ñu xeex. xeex bi moom dina am moom. Hmm. te bu xeex amee kenn dina. non moom kay bu korose yi tàkkee moom day bàyyi day am di nga gis ko bàyyi kenn ki daw jëli ko waaw mu jeex. loolu loolu laa gis si làmb ji. <laughs> gis si làmb ji. waaw loolu leer na. am na solo booy fay looy tàggoo. waaw maa ngi kontaan kontaan ci yow bu baax a baax maam Bamba waaw. waaw di kontaan ci sama grand bi nga xamante ne mooy El moom laa defal fii def émission bi fii ci place muy Saalum Sopp waaw gars yi bu ñëwee fii pour bëgg coulisse yu mool yëre yu mool wala daal yu mool mu jaay leen ko waaw waaw yow sax maa baaba boo ñëwee mooy loolu noonu mhm. am na bu nekk fii ci cinéma bi am na bu nekk ci biir marché cinéma bi tamit quoi mhm. waaw bagage yaa ngi fépp na gars yi ñëw mhm. mu solal leen waaw di sant waa Saalum yëpp nag ak waa Siin waa kër Mbangu Jaawa waa Daaru kër Momar Xoroja waa Njóobeen Taaleen waa kër Biraan waaw mënu leen fay mënu ma leen fay ñoom ñëpp dañuy jàpp ci làmb yi surtout waa sanc Aliou Ndiaye dañ ci jàpp bu baax waa Fatick waa Nduuk waaw waa Mbelgoor munu ma leen a fay waa Jilaxaar ñoom ñëpp loolu seeseen gaa yi dañuy jàpp ci bagage yi waa di di bëggee gaa yëpp waa Intec bii nii 1 ba 26 waa parcelle gi nga xamante ni ñoom ñëpp mënu ma leen fay waa ginnaaw raay gi ma yaroo bàcc seeraas mi ma yar gargamboose jamono bii maa ngi door dóoraat gargamboose bi nga xamante ne moom mooy sunu njiit fii nii maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax di ko siyaar waa staff booy fay ñu ngi béggee ñëpp sama mag Ibrahima Niang Alain Ngom France mm-hmm. mooy borom ren si DKR mënu ma ko fay mm-hmm. maa ngi béggee ñëpp Babacar Sall Ngaari mm-hmm. ba Saaxo ñoom ñëpp Moustapha Cissé gars yi na ci staff booy fay bi yëpp ñoom ñëpp maa leen di béggee ba ci garaan Elane moom ci staff bi la bokk Mansour garaan Mansour ñoom ñëpp ñu ci staff bi noonu lay demee di bëgg ci bu baax a baax di wax Sénégal yal def jàmm. champion nga waaw noonu lay demee maa ngi bëggee gars yëpp ku ma limul nag mooy loolu noonu dama juum. waaw noonu la fa demee quoi. macha allah am na solo booy Faye ñu lay remercier bu baax. ci bi analyse bi na solo trop. Mhm. te vraiment champion ku la stade nga bëre. heure bu duggee ci kii vraiment ful nga fay def ak fayda même si bu fekkee da ngay perte wala ngay mhm. mhm. bi gars yi di leen jox rendez-vous toujours ci waxtaanu làmb jaa ngeen jëf